ñetti engin yoo xamante ni euh, ay pocalin que euh, pelleteuse ya fa nekk gone yi bañ fa eggee itam dañ ko daal di taal prolongé ba Grand ne nañu foof itam tuwo ndox ya nekkoon foofu yëpp euh, gone yi taal nañ ko fa waaye nag la ci gën a métti mooy ñu ne un mort boo xam ne jot naa am ci Ndakaar waaye nag ba léegi yëf yi dese naa confirmé wu ndax ki nga xamante ni moo di maam góor gi jaay ñu bari xam ko mu nekkoon un un grand lutteur ci ay jamono moom euh, sunu maam ju baax jooju moom dafa génn àdduna ni ki démb waaye nag la ñu jotoon a jot ci xibaar mooy lacrymogène dañ doon dóor ca këram ca boori këram plutôt moo ko juraloon moo amee euh, xët xët ndax moom nag euh, wérul woon waaye nag ginnaaw ba fa lacrymogène yi gënee dugg nag moom il s'est senti très mal bañ ko yóbbee hôpital malheureusement fa la ñàkkee bakkanam nag xamuñu ne ndax Euh, de façon directe lacrymogène ñoo ko faatam déet en tout cas daal la responsabilité quand même a été imputée euh, ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo doon doon lacrymogène ndax nee nañ suñu defaloon li ni mel xëy na moom mi lee maam Gorgui Ndiaye tey dana yeewoo ak njabootam malheureusement nag moom mi lee faatu na ñoo ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana masawu njabootam itam waaye itam danañu dem ca Ndar foofu nga xam ne itam ni ki c'est six heures du matin ba léegi ndongo ya fa ñoo ngi koy def seen i veillée taal seen i bougie six ba léegi Eh, def fa toogaani ñaxtu dem baare eh, route nationale ba itam ñoom nag la ñu mënta wanaasu mooy seen eh, collègue boobu nga xamante ne seen mbokki étudiant boobu nga xam ne ni ki itam moom lañ ko daal di faat ci manifestation yi nga xam ne ñoo amoon foofu noonu ci université quand même une énième personne tuée dans nos universités à chaque fois nag loolu su amee dañuy taxaw fii ko waaye dafa mel ni nag mbir mi mënut a mënut a jeex ndax université Gaston Berger boobu noonu amoon na manifestation bu amoon ba am beneen étudiant boo xamante ne jotoon na ko caa faat ah, moom itam ba léegi ay mbiram daanaka sax euh, leeragul moom nga xamante ne moo di euh, Fallou Sène ay mbiram ba léegi leeragul daanaka étudiant gi sax noppeekuñu euh, jooy génnub addunaam keneen seeni moroom itam ñu daal di koy faat foofu noonu ci université Gaston Berger tax na ba jamono ji itam étudiants yi fa ils sont inconsolables ba itam très déterminés à que lii lay daal di fi yem ñoom jamono ji nag mën nañu wax ni ci bésub tey ñoom ñoo xëyee ak li nga xam ne moo di ay série de manifestation xanaa ci kanam itam danañ fa jéem a euh, demaat xool euh, lan moo fa daal di am en matière euh, d'information ndax ñoom ñoo ngi woy di yëngal comme nañ ko doore woon démb fanaanoo ko ci guddi gi ndax maa ngi leen di fàttali ne am na benn veillée boo xamante ne ñoom ñoo ngi ko doon def six heures du matin ba léegi waaye itam ci la nga xam ne loolu la ñu waxle woon wax nañ ne danañ baare li nga xamante ne moo di route nationale ba nekk foofu doon loolu nag nekk na la nga xam ne ñoom étudiants yi ñoom ñoo ko décidé woon te seen euh, bopp suñu ñëwee itam fii ci Ndakaaru gis nañ même lu déplorable ndax euh, am na taskatu xibaar yoo xamante ne ni ki démb euh, jot nañ leen daal di violenté am ay jigéen sax daanaka vidéo yooyu ñoo gën a viral jamono ñu toll ñu gis ñaari soxna su jigéen soo xam ne kenn ki dañ ko daal di dóor la patam patamee jël la dugal ci oto ba kenn ki itam di taskatu xibaar moom itam ñu daal di koy %e dóor xëcc yóbbu kenn xamul nag euh, mu nekk loo xamante ne %e presse bi ñoo ngi koy jooy %e ba léegi nag mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ni ñi nga xam ne ñoo di %e kilifa yi waa waa presse :fra bi itam yëkkati nañ ci ay communiqué :fra jëmale ko ci ci la xew bokk na ci itam groupe Leral bi nga xam ne seen directeur :fra démb Ibrahima Touré itam jot naa addu ci sunu ay confrères di ñaawlu la ñu def ñoom itam seen i taskati xibaar %e daal di yàq seen matériel :fra dagg fil ba loolu lépp nag Sénégal yëpp eh, di ko gis eh, di ko ñaawlu itam waaye nag eh, su demee ba ñi nga xamante ne ñoom moom la ñuy wax ne ñoom ñoo war a res kaarangeewu askan wi su ñu demee bay violente seen askan ndax loolu itam amut yeneen taxawaay yoo xamante ne wax nañ ko ci mën ci am en tout cas daal mbir maa ngi mbir maa ngi noonu donc c'est le bilan provisoire bi nga xamante ne jamono ji jot nañ ko daal di nemmeeku mu di ay yàqu-yàqu yu bari fii nii ci Ndakaaru ci yenn zone yi waaye itam ñu ne maam góor gi Njaay nekkoon ancien mi nga xam ne dafa génn àdduna ñene ci ay dégg ñaaleem di jokkat bi baaraamu tuuma lacrymogène lañu daan dóor wetu këram nee nañ lii la bokk na ci la gënoon na sonal ba ñu yore ko yóbbu hôpital malheureusement moom bujjee ñàkk bakkanam mais ndax euh, moom mi nga xam ne euh, woppoon na mën nañ jël euh, génn àdduna daal di koy wekk ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dóor lacrymogène yooyu en tout cas daal pour l'instant bilan boobu la ñu daal di comptabiliser ci série de manifestation étudiant bi ñu rey Heu, ah, niki %e, ah, niki démb maa ngi leen ko doon wax fa nga xamante ni moo di %e, moo di ca Saint-Louis vraiment mu nekk euh, lu triste di masawu bu baax a baax, heu, eh, ñi nga xamante ni ñoo di sunu ay mbokki étudiants ya fa masawu aussi et eh, la presse bi nga xam ne niki démb vraiment gis nañ ni ñu leen daal di %e violenter mu nekk lu loo xamante ni nag mënuñu koo accepter vraiment mënuñu ko accepter %e di wax ne saa su nekk rek, heu, mbir su amee vraiment ñu les journalistes nous sommes les ndax ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy wàcc ci terrain bi ngir couvrir événement yi la plupart nous sommes quand même brutalisés par des forces par ces forces de défense et de sécurité ah c'est pas pour les jeter pour pour jeter pour leur euh, des pierres mais xam nañ lépp ñun ñëpp ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yeeg ñoom am nañ ci ay mbokk am nañ ci ay xarit am nañ ci ay àndandoo am nañ ci ay frères donc on parle à nos frères nos amis ñoo nga xamante ne euh, barki démb Ndiaye ñun ñoo doon ànd di dem jàng lycée ñun ñoo doon ànd peut-être di dem université ñu defandoo formation ñoom ils ont choisi de quand même aller représenter euh, la patrie en euh, en entrant dans l'armée en étant policier soit un gendarme wala beneen force de défense et de sécurité mais itam jàpp naa ni euh, soo gisee sa frère wala sa sœur am nga yeneen comportement yoo xamante ne war nga ko jëmale ci moom c'est surtout dans l'exercice des fonctions su nekkoon koo xamante ne day yàq wala mu nekk foofu noonu di xaañ ak ak def la na mel sax la on pourrait peut-être wax Euh, amul excuse boo xam ne mun nañ ko daal di utiliser par rapport à sa mais su fekkee ne boo xamante ne dafa wàcc sur le terrain def liggéeyam ah je pense que am na leneen loo xamante ne wax nañ ko mën di def lu dul di euh, di mbéj ak pad vraiment c'est une image boo xam ne ni ñu ko gisee noonu ah, depuis hier euh, moo ngi circuler sur les réseaux sociaux ah, ah, bokk na ci benn journaliste boo xamante ne dañ ko daal di jàpp moo di sunu concert bi di Absa Anne Ah, moom nga xam ne nekk eh, taskatu xibaar eh, fa nga xamante ni moo di ca Seneweb vraiment eh, ñu ngi koy masaw bu baax a baax ci coono yi nga xamante ne daj na ko vraiment di ko masaw di masaw ñeneen itam ku ci mel ni Cheikh Ahmadou Bamba moom itam nga xamante ne ci liggéey bi la bokk ni ki démb il a été atteint par balle dañ ko mujj woon évacué fi nga xamante ni moo di hôpital CTO bu Grand Yoff rek mu daal di mu daal di amal foofu noonu ay ay euh, ay soins ginnaaw bi nga xamante ne euh, tànk ba da cee daal di da cee da daal di euh, gaañu waaye itam ñoo xam ne ñoo ngi bu baax a baax comportement yooyu nga xamante ni itam taskatu xibaar yi am nañ ko gis nañ ñenn sax ay gaynde vraiment ku ci mel ni capitaine ba Kalidou Koulibaly ñoom Pathé ñëpp ils ont fait des tweets quand pour nakkarlu ak ñaawlu ni nga xamante ne noonu la noonu la yëf yi amee même ba ci e bi te train bi itam am na ay yàqu-yàqu yoo xamante ne jot na caa jot na caa jot na caa am gis nañ itam ay ay ay personnalité politique yoo xamante ne ñoom ci pouvoir bi la ñu nekkee di génn itam di essayer contrecarrer li nga xam ne moo di moo di manifestants yi on a vu des images koo xam ne ko ci ràññee la ci dëkk bi mu génn yoru fetalam di dox ah, yor xeer di xaañ loolu itam su ca askan wi toppee toppoon ca loolu muy def ndax mënul juux leneen itam ndax su nekkee askan ñooy daal di jàkkaar loolu itam Euh, mën na euh, mën na daal indi indi leneen donc mooy euh, à peu près li nga xamante ni moo jot a ni ki démb maa ngi ko doon wax ki nga xam ne maam ko jaay moom nga xam ne nañ ni ki démb dafa génn àdduna ba ay yenn jëgi ñaaleem di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoo takk der yi ndax ñoom ñoo doon ñu jàpp ne xet sonal ko loolu moom góor gi ba mu ñàkk bakkanam keneen ka ñàkk bakkanam bien sûr mooy étudiant boobu nga xamante ne mu ngi wuyoo nekkoon en deuxième année foofu noonu Heu, moom mo euh, deuxième année de géographie en géographie plutôt moom loolu la doon daal moom moo daal di ñàkk, heu, bakkanam foofu noonu nga xamante ñaar ñooñu nga xam ne ñoom ngeen daal di euh, ñoom ngeen daal di gis donc lii lee mooy jamono ji bilan bu provisoire boo xamante jot naa am au lendemain bien sûr des manifestations, heu, dinañ dem Touba dem Ziguinchor itam xool lan moo fa moo fa daal am. Régis su nekk am na ku bëgg a bokk ci waxtaan wi 77 la 810 90 90 77 810 90 90 comme ni ngeen ko daan defee fu waay nekk ci àdduna bi. moo xam appel direct wala appel whatsapp daa nga mën a eh, joxe sa xalaat ci li jot xew dem salaamaaleykum allo voilà amul ku nekk ci buum bi su nekk amul ku nekk ah, ñu ah, ñu continuer ak eh, information yi comme ni ko doon waxee ni nga xam ne noonu la ñu eh, seetloo ay série de manifestation bilan bi toll ci ñaari nit ñu ñàkk seen bakkanam benn étudiant Heu, ca ak heu, benn, Waaw. mag fii ci, heu, Ndakaaru ñu ne Mame Gor Ndiaye nekkoon Al ancien grand allo de maa la moom dafa jot a génn àdduna. Allo. aleykum salaam. Mbokk mi na ngeen def? waaw ñu ngi sant Yàlla bu baax a baax. Foo ñuy woowee? Maa ngi leen di ngi am jàmm. foofu moom ba amoo leen ay euh, yàqu-yàqu ci li jot a xew dem waaw effectivement sëñ bi ndax da nga yor ay écouteur wala ay AirPods waaw non non yor na Régis jëlal ma ko Régis jëlal ma ko nga ma ko ne su nekk dafa yor ay écouteur ay AirPods rek ah, mu daal di koy euh, tekki ndax dégg-dégg bi gën a mën a yemb fàttali ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan mën ngeen woote bokk ci waxtaan wi def 77 810 90 90 77 810 90 90 salaamaaleykum. waaw aleykum salaam. waaw acca bisimilah. allo. waaw doo ñu bal yokk kàddu gi tuuti. dégg-dégg bi leerul ah, daa mel ni dégg-dégg bi euh, leerul di jaajëfal itam ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy euh, seetaan Youssouf Sonko. maa ngi lay euh, nuyu ak euh, Ndeye Fall ak Ibrahima Pleya comme d'habitude vous êtes euh, toujours présent à notre discussion bi itam bëgg nañ xam seen xalaat par rapport à ce qui s'est hier mu nekk pour une je ne première mais manifestation bi ci nga xamante ne askan wi sax génn nañ ci par rapport ak li nga xam ne moom la leader politique yi woote woon xam na am na ñoo xam ne ñu bari jëf yi metti leen mais ba léegi comme nuñu daan gisee ni ki dem la ñu jot a seetlu nekkul ay manifestation daal fa mel ni sax ay dañ doon yàq daal ñenn ñi ci askan ñu doon génn ah, ñi nga xam ne dañ doon manifester bëriwu ñu am ñoo xam ne ñu doon génn ngir yàq ah, wane seen wane seen mais jàmmarloo bu métti métti métti daanaka sax bëriwul foo xamante jot nañ ko dañ ko daal di ràññee salaamaaleykum waaw aleykum salaam na ngeen def waaw ñu ngi sant yàlla bu ah d' accord acca bismillah maa nga doon laaj sànq ne ndax foofu eh, amul ay yàqu-yàqu yoo xamante ne eh, ni ki démb jot nañ ko nemmeeku ginnaaw bi nga xam ne yenn ci wi génn nañ ngir manifester eh, na côté bii nag mm-hmm. waaw mais comme nu ma Dakar ak waaw ci naqar bu baax a te di wax ne réew mi nag maanaam dafa am loo xamante ne moom lañ ko xam woon ci démocratie report élection maanaam su ma waral peut na ndaxte boobu parti moo fi nekkoon benn candidat amul ñu jàmmaarloo pour kañ su ko neexee remplacer la élection mais tey mënuñu am presque vingt candidats président Macky Sall bi bokkoon ay élection yoo xamante ne tegu de corruption mooy lan loo xamante ne fondeur bi moom nañu waxtaan commission enquête parlementaire bi def ko commencé euh, corruption amul léegi loolu loolu est ce que jaroon na mu ko bàyyi diggante problème constitutionnel ak waa ensemble bi am ay maanaam seen diggante mais loolu yàgg na ci mais tey su ñëwee di wax article cinquante deux moom xëy na dafa jàng ko mu jeex wala moom dañoo bëgg a jaay affaire xel article cinquante deux lu wax dafa leer nag su fekkee maanaam crise constitutionnelle dafa am su boobaa am na ci droit mais fii mënuñoo wax crise constitutionnelle ndaxte suñu fàttali ko en mille neuf cent en mille neuf cent quatre-vingt-treize ba nga xamee ne maanaam juge démissionné ñu remplace ko beneen juge yu rek ko teewul maanaam procédure bi da doon dox nu mu waree kon loolu boo gën a doon crise constitutionnelle tey suñu demaatee article quatre-vingt-douze mhm. ci condition bi lu mu wax dafa leer nañ maanaam su fekkee ne maanaam conseil constitutionnel na décision mhm. maanaam lépp luy pouvoir public wala muy euh, comment dire yeneen pouvoir yëpp war a tënk mhm. kon tey moom amul benn maqaam amul benn prérogative ne day reporter ay élection tey ñoom aussi maanaam article bi ñu biisal mooy article trente et su fekkee ne laal nañ ko yeneen article yëpp dañu am ay dérèglement ndaxte article vingt sept dafay maanaam mandat présidentiel cinq ans la teg ne mille ne pour plus de deux mandats consécutifs mais suñu laalee article trente et un ne dañu dañ cee yokk maanaam quelques mm-hmm. kon article boobu yëpp na cinq cinq cinq ans mais li ci gën a li ci gën a doy waar mooy lan moo bi ñu utiliser dérogation loolu ci kër bu ñuy wax drogué moo boobu ñeme naa wàccee la ni dem ci ko voté sax xamuñu moo boobu lu ñu signifié <laughs> ñu bari xamuñu ko xamuñu ko suñ ko xamoon dañuy dañuy am daje sax pour maanaam toog assemblée di défendre toog nga xam te mooy li wax ndaxte loolu saa soo ko xoolee rek maanaam dañuy wax ak saa la ci réew mhm. ndaxte dérogation am na foo xam dañuy wax ne maanaam mooy ay droit te mhm. suñu réew mi waroon naa dépassé soo xamante ne maanaam dañuy dem ko ay droit mhm. li nga xamante ne mooy moo gën a kawe ci réew mi mooy waa conseil constitutionnel jël décision ay prérequis de de député toog benn conseil bu ñëw maanaam mettre suñu def bi en table te ñoom amuñ benn li nga xam lañ doon ko def su loolu bi ni ñu ko defee assemblée nationale su fekkee ne maanaam lu mel noonu am na balaa muy dem assemblée nationale war naa jaar comité économique ñu saytu conséquence économique yi mu war a am. ndax amul incidence. voilà mais ñoom est def nañu loolu defuñ ko quel que soit alpha maanaam dépassé nañ la ndaxte mënuñoo def mënuñu war a nekk élection nekk le vingt cinq mhm. ñu defal bulletin defal def programme def boo taay commencé ci base Touba mhm. ñu reporté ko ne amul impact économique mhm. loolu xel nangu ko deuxième chose bi ñu violer loi assemblée dugal si biir yi dañ ko doxalee gaaw na gaawaay boo xamante ne su fekkee règlement intérieur bi ensemble la bari temp mhm. jaarul yoon te am na depuis loolu ñu ko fas yéene rek mu mel ni ay baax comment dire procureur bi taxaw ne maanaam ñu procédure maanaam dafa nekk urgent mhm. mais su fekkee dama dem tirage euh, règlement intérieur ensemble national mhm. xam nañ li li nga xam ne dafa urgent ak urgent wu li may jaaxale mooy lan président Macky Sall mhm. su fekkee na jàmm nañu bàyyi si réew mi dem d'accord d'accord di gis na ko mhm. waaw di ñaan nag jàmm ci réew baax a baax merci merci beaucoup jaajëf di wax kilifa diine yi di ñaanal jàmm ci réew mi wax ak président merci merci beaucoup merci merci ok euh, nga nuyul waa Bambey gépp ah, nga xam ne